dal leen ak jàmm suñu mbokku internet yi ci seen actualité people. people tey nag dañ koy tàmbalee ak euh, affaire Diop ISEG bi nga xamante ne moom day mel ni dafa ñaan liberté provisoire. Diop ISEG nangu na lépp li nga xamante ne moom lañ ko daan tuumal ak doom bi nga xamante ne moom la amal ak Dieyna bu ñu jógee foofu dañuy dem ci li nga xamante ne day mel ni léegi tendance la muy di teint noir bi nga xamante ne ñëpp a ngi koy ndamoo Euh, ñu wane photo yi nga xamante ne moo di Amsa Marème ci maîtresse d'un homme marié tubaar fakal macha allah ñu pare nan ma Njaay Sekk bi nga xamante ne moom dafa takkoon jabar defaat na retouram ak soxnam su yanj si nit ñi nag foogoon na ni moom ak sumbulu bàcc li dañoo sekk dara te mu ngi nii wane na ko bu ñu jugee foofu noonu dañuy dem seeti ki nga xamante ne mooy na bi bokkoon ci seen série Nafi après scandale boobu nga xamante ne moom moo fi amoon def na retouram ak ay photo yoo xamante ne c'est à couper le souffle bu ñu jugee foofu noonu infidèle série bu bees bi nga xamante ne waaye Evenprod ñu ngi koy waaj mel na ni loolu day ñëw concurrencer ak maîtresse d'un homme marié dafa mel ni day ñëw concurrencer ak maîtresse d'un homme marié ndax gis nañ ci kii di Cathy Chimère Edu ak Billy bu ñu jugee foofu dañuy dem seeti ji Adja Diallo nga xamante ne moom depuis divorce bi ak Ibou Touré moom day mel ni day gën di yànj dem ko ci page Instagram bi nga xamante benn bouquet nit yi di laam-laame ndax dafa dellu ak borom kër gi mel na ni ñoom ñaar delluwaatuñu liy tëj actualité people bi tey nag mooy euh, Mbaye Dieye Faye bi nga xamante ne def na benn interview ci waa réew mi quotidien moom mi ngi xam le ne moom ak Youssou Ndour mës nañu jotee wante bés boobu de ñoom ñaar ku ci nekk ba nga wanee sa moroom ginnaaw dangaa jooy ndax xam na ni seen xaritoo bi li ko tëgg tasu ko bés boobu ci cadre liggéey rek moo taxoon ñu jàppante mais li muy wax ni nee na def na vingt ans ak léegi pour wane amitié bu sincère mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.